boo ko internet yi maa ngi leen nuyu di leen naan dal leen ak jàmm tontonte bu métti moo amoon démb ci Kaolack diggante président de la république ak kii di xaritam Ahmed Khalifa Niass ginnaaw moom président de la république amale ngan foofee ci Kaolack ci wàllum tournée économique bi nga xamante ne moom la doon amal tàmbalee ko fi nga xamante ne moom moo di Kédougou démb mu nekkoon foofee ci Kaolack xuloo bi nag mu ngi tàmbalee ginnaaw ki nga xamante ne moom moo di Ahmed Khalifa Niass bu mu jëlee kaddu ci wàllum conseil présidentiel bu fa doon amal démb xamal ki nga xamante ne moom moo di président de la République Macky Sall ne bu yoon bi nga xamante ne moom moo jógee Ndakaaru war a dem ba euh, fi nga xamante ne moom moo di Léona Niassène wala yoon bi nga xamante ne moom moo jógee Ziguinchor nar a dem ba Léona Niassène lii nga xamante au pouvoir war du ñu am dara foofee ci Kaolack ci élection présidentielle bi ñu dëmmal moom nag ki nga xamante ne moom moo di euh, Ahmed Khalifa Niass mu noppee ci euh, kaddu yu nga xamante ne euh, moom la yëkkati président de la République Macky Sall xarutoon dara benn yoon moom itam bu mu jëlee li nga xamante ne moom moo di kaddu wax na ne ki nga xamante ne moom moo di Ahmed Khalifa Niass daal di koy recadrer wax ko ne du noonu la ñuy laajtee li nga xamante ne moom moo di ab mbir nit ndax boo soxla boo amee li nga xamante ne moom moo di soxla am na li nga xamante ne noonu koy noonu nga koy waxee boo bëggee ñu daal di faj soxla bu ñu mel moom nag président de la république mu mel ni nag li nga xamante ne moom la xaritam bi di Ahmed Khalifa Niass wax jëmale ko ci ci parti am di di euh, parti au pouvoir ne bu ñu defaralee yoon bi ñu mel du ñu am dara fee ci Kaolack mu mel ni nag wax boobu daf ko métti looloo tax nag moom xaaratoon benn yoon lii nga xamante ne moom moo di euh, kaddu euh, Ahmed Khalifa Niass mu daal di koy euh, tontu ci saa si am sax ñu nga xamante ne dañoo wax ne moom président de la République dafa daal di recadrer maanaam yemale ko ci nga xamante ne moo di place am xamal ko ne rek li nga xamante ne moom la moom amee Khalifa Niass wax. nekkul li nga xamante ne waxu kilifa la kilifa nag boo amee soxla bëgg ñu euh, fajal la ko dafa am li nga koy waxee wala li nga ko koy laajte lii mooy li nga xamante ne moom moo doxoon démb euh, ci kaw la diggante ki nga xamante ne moom moo di euh, président de la république Macky ak ki nga xamante ne moom moo di Ahmed Khalifa Niass li nga xamante ne nag moo bett ñu bëri mooy ñu bëri jàpp nañ ne ki nga xamante ne moom moo di président de la république ak ki nga xamante moom moo di Ahmed Khalifa Niass ay xarit lañu ñu donc xuloo bu demee bu am seen diggante dafay bett ñu bëri ndaxte kenn xaartoon ay kaddu wala ay tontonte jib diggante ki nga xamante ne moom moo di euh, président de la république euh, Macky ak ki nga xamante ne moom moo di Ahmed Khalifa Niass rawatina ci euh, mbir bi ñu mel maanaam ci ab conseil euh, présidentiel bi nga xamante ne moom président de la république moo ko jiite woon moom Ahmed Khalifa Niass taxaw publiquement daal di wax ki nga xamante ne moom moo di euh, président de la république Macky Sall ne boo leen defar tey yoon bi nga xamante ne moom moo jógee Ndakaaru jëm fi nga xamante ne moom moo di Léona Niassène wala yoon bi joge jógee Ziguinchor ñëw Léona Niassène boo leen ko defarul doo leen am dara fii ci Kaolack kaddu yoonu nag moom moo méttoon ki nga xamante ne moom moo di président de la république Macky Sall moom itam yëkkati kaddu daal di tontu ki nga xamante ne moom moo di amee Khalifa Niass ah, ca saa si wax ko ne li nga xamante ne moom la wax nekkul li nga xamante ne ah, kilifa la kilifa boo amee soxla dafa am ni koy laajte wala dafa am ni ko koy ah, waxee moom président de la République dafa ci toftal la première fois muy dëgg li nga xamante ne moom moo di mbir ma maanaam yoon bi xamante ne moom moo jógee Ndakaaru dem Léona Niassène wala jógee Ziguinchor ñëw Léona Niassène dafa am liggéey bi nga xamante ne moom moo ci des loolu tax nag moom président de la République jàpp ne Maître Khalifa Niass Dias euh, occasion la ci moom pour mu daal di euh, waxtaan ci loolu euh, jëmale ko ci li nga xamante ne moom moo di mbir mi ñu waaye wartoon taxaw publiquement daal di wax li nga xamante la kaddu yu yëkkat mu bu doon amal li nga xamante ne moom moo di conseil présidentiel mu ñeel le tournée économique bi nga xamante ne moom la président de la République Macky Sall tàmbale fële ci région Kédougou nekk démb fi nga xamante ne moo di Kaolack a continuer nag jëm fi nga xamante ne moo di Fatick Kaffrine fi nga xamante ne moom président de la république dina fa teg tànkam ngir amal li nga xamante ne moom moo di ay conseil présidentiel euh, décentralisé mu mel ni nag euh, démb tàngoon na diggante ki nga xamante ne de la république Macky Sall ak xaritam bi nga xamante ne moom moo di Ahmed euh, Khalifa Niass ñi nga xamante ne ay xarit lañu souvent daanuñu réeroo ci ay kaddu waaye xam naa ne rek démb rek ki nga xamante ne moom moo di Ahmed Khalifa Niass du mu aborder mbir mi looloo métti ki nga xamante moom moo di xaritam président de la nga ne moom Ahmed Khalifa Niass yëkkati na ko wax ko foofu ci pencum bi nga xamante ne euh, foofu lañ doon amal lii di euh, conseil euh, présidentiel mbokk yi ma leen di jox dig daje si yeneen jotaay xibaar incha allah.